chaque jour rek wallahi Macky Sall gàcce gi sàng ñay sëlamu ko billaay wallaay tallaay parce que Macky Sall dama xamul lan moo ko jaral muy wàccee boppam nii muy wàccee boppam parce que Macky Sall moom xam na ni du nii la mën a yoree Sénégal maanaam du nii li mu bëgg a imposer nii xam na ni du jàll moom xam na ko mais lan moo tax mu di ko def loolu moom moo ñu jaaxal ndax paix sociale bi nga xam ñun nuñ ko bokk Macky Sall waru ko salfaañe keneen waru ko salfaañe mhm. mooy lu ñu bokk ñun ñëpp te moom xam na ni mu ngi instant mu ngi bafoué liberté nit ñi moom xam na ko bu mu waxee loolu jige foofu yokk effectif gendarme effectif policier changé ñi nga xam ne ñoo jiite woon jamono boobu gendarmerie bi ak ñi jiite woon li nga xamante ni moo di police bi mhm. renforcé amul benn politique de jeunesse bu mu teg wala politique boo xam ne dina mën a teg ndaw ñi soulager seen naqar boobu ñu amoon ak injustice bi nga xam ne deux poids deux mesures bi nga xam ne ndaw ñi ñu ngi ko doon xeex mars deux mille vingt et un hmm. léegi nag série d'arrestation yi te tey lool si loolu logique am boobu mu nekk rek Mame Bousso ba tey si la nekk mooy tiital askan bi xiifal leen ba après lool leen proposé dañuy nangu parce que duñu am choix. Hmm. mais malheureusement dafa comprendre état d'esprit bi askan bi am. moo tax dama wax chaque jour on est en avance sur eux Mame Bousso. Hmm. dañ leen raw lu bëri ni. àdduna bi di doxee ak sunu mentalité ñun dañu sous-estimer ko maanaam les élites dañu de dañu sous-estimer mentalité ndaw ñi maanaam dañu mënuñoo dé mënuñoo amuñu connexion quoi bu doon ñu nag bu ma nee dama naan daf il nous prend en contre-pied. d'accord te wallaahi Macky Sall li mu bëgg mënta nekk. billaahi wallaahi tallaahi. Mm-hmm. tey am nañ boo yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi xoolal ci siwo bu ñu bu ñu bëggee dem wanag ci siwo la ñuy demee wanag suñ bëggee saw ci siwo la ñuy booy Mame Bousso mënuñu mënuñu julli. tey gën a pire euh, gis nañ paquetage dañ leen doon def jamono ji ñu tolluwaat lim bu toll. moom dugalaat paquetage mhm. nee naa la li ñuy dund moo raw paquetage. Mhm. dèjà ku ne xam na ni euh, rëbës prison yi daanaka defkatu sàcc yeeg defkatu lu bon yi rek ñoom xajuñu prison. Mhm. léegi nga ci boole nag léegi ñoo xam ne ay nit yu baax lañ nga leen di taxé de diffamation atteinte à la sûreté de l'État. mais ay ay loi yu bees tàkk yoo xam ni jarul sax nga ci téye nit garde à mooy diffusion de fausse nouvelle comme tu as yow am nga vraie nouvelle bi mais génneel vraie nouvelle bi nga ni lii mooy nouvelle bu baax bi mm. yow mi wax diffusion de fausse nouvelle bi au lieu ñu lay tëj génneel nga démentir sa bopp gor toroxal ko weesuwul mu wax loo xam ne du dëgg nga indil ko dëgg gi ne ko génneel nga wax nga weddil sa bopp mm. loolu rek doy na ci duma gor mm-hmm. tey maam bu sa man su ma waxee loo xam ne du dëgg état bi am information bu baax état bi dafay génn joxe information bu baax ba pare ne ma man génnal nga démentir damay démentir. Mm-hmm. mais diffusion de fausse nouvelle boo xam ne ñoom ñi yor nouvelle bu baax bi duñ ko indi te pour man bu dee diffusion de fausse nouvelle ñoom ñoo koy def ñoom ñoo koy def ñoom ñoo ne tey procureur bi Diouf bi di nekkoon fii ex procureur de la république taxaw na fi ne trente et quelques rebelles am ñoo dugg ci dëkk bi jàpp nañ kenn. ana ana ñeneen ñi ba tey jii gisuñu leen. Mm-hmm. ñooñu ñu fu ñu nekk. ñoom ñooy taxaw di ñu wax ay diffusion de fausses nouvelles yu dul jeex mais daal maam Bousso lu ma la mën a xamal. Mm-hmm. sénégalais yi plus de six cent et quelques jeunes innocents ñu ngi ci biir kaso bi. loolu ci guerre civile yi sax amul. Mm-hmm. maanaam lii kenn xamul lan la tudd kenn xamul. weeru koor quoi man balaa may dee wàllu lan la ñuy yàlla booy. mais comme ni nga ko waxee san gis nañ ni euh, askan bi ñu ci ëpp nag ay militants Pastef wala sax yeewu askan bi ñoo ci ëpp euh, ndax jàppoon ne seen leader bi la Ousmane Sonko dafa war a daal di changer stratégie maanaam anam bi nga xamante ni moom lay daal di xee xeexee comme bu nga xamante ni buy xeex nee génn leen ñu jël ay ñoñom yu bëri tëj leen ci biir kaso bi ndax jàppoon ne jotul mu changer stratégie. Ousmane Sonko de wax dëgg yàlla liñ naan yedd yërëma ko gën. man Ousmane Sonko awma benn leçon bu ma koy jox. lu mhm. dul génnee ko ci fitna bii mu nekk. Euh, Mame Bousso Ousmane Sonko mu ngi ci fitna bu mett Mame ku ne xam na ni ñii ñu jàkkaar lool gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi alalu àdduna lañ gëm ak nguur Ousmane Sonko bu ma moo tax damay gis ñu naan sax na génnee ay njabootam xaw la lan lan Ousmane Sonko jëmmi boppam la sacrifié. Mhm. ku sacrifier sa jëmmi bopp sa jëmmi bopp Ousmane Sonko nekkul woon ci administration nekkul woon de domaine lu ko fa jëlee moom ci boppam la commencé Ousmane Sonko nekkul moom maanaam euh, ku ñuy jox leçon jamono bii. ku ñuy aar la Ousmane Sonko ku ñuy aar ku ñuy aar la ku ñuy wattu la ku ñu war a yërëm la ku ñu war a taxaw de ne ko mais kii dañ koy aar parce que sénégalais la comme ñëpp parce que tey kenn mënu wax lu Ousmane Sonko def. Mm-hmm. su dee lu mu def la rek. Bougazeli 32 milliards de faux billets plus tentative de corruption a une un agent assermenté à un agent assermenté lee ngi tëdd fii këram te ngeen takkalu ko bracelet xaalisu Covid bi ñan lañu wax ñoo ko dóor kan lañ ci jàpp kon képp ku bëgg a jox leçon Ousmane Sonko rek maanaam da bëgg da nga farak pouvoir bi te xamuloo noo koy noo koy manifester Ousmane ku ñu war a taxaw la ku ñu war a aar la jamono ji parce que il est en danger parce que dafa taxaw. nekk un homme public défier li nga xamante ni moom mooy ñi nga xam ne ñoo ngi yor alalu réew mi di ko caaxaan. Mm-hmm. mu ñëw taxaw ne il faut que ñoom ñu arrêté loolu. il faut ñu jël alalu askan bi delloo ko ci askan bi. Mm-hmm. il faut ñu respecter li nga xamante ni mooy institution yi. ñu ne ko du fi amee damaa am ambition je un sénégalais dama am ambition jiite le Sénégal j'ai un programme. Mm-hmm. Ousmane Sonko bu doon dafa ñëw rek commencer di attaquer mais Ousmane Sonko moo fi njëkk nekk un politicien bu ñëw bind livre. dee ko solution woo nit ñi fii place de la nation journaliste yi ak borom xam-xam yi. Mhm. ne leen kaay ñu waxtaanee tolluwaayu réew mi kaay leen ñu waxtaanee naka la ñuy def ba réew mi dox ak lan moo doxul ci réew mi. Mhm. ak lii solution pour réew mi. Mhm. bind ko ci livre fii homme politique boo fi daan gis programme am ñaari page lay doon Ousmane Sonko livre la bind pour Sénégal mais malheureusement ñi mu jàkkaarloo amuñu des outils pour pour pour ñëw moom ci terrain boobu. ñu ñëw nag ci terrain diabolisation terrain wu tuuma terrain wu sexe. terew saagante waxante lu ñaaw mais Ousmane Sonko bi muy doog a ñëw Mame Bousso mais programme la indi di jouer rôle opposition mooy di xool contribuable bi ndax ndax nguur gi ñu ngi koy jaarale fu mu war a jaar. Mm-hmm. di xool ñi nga xam ne ñoo ngi di génne ay scandale di génne ay rapport te loolu mooy rôle opposition. Mm-hmm. opposition mooy état bi da ko war di saytu. di xool ndax contribuable sénégalais yi ak décision bi muy jël ci turu sénégalais yi est-ce que mu ngi jël décision bu baax yan conséquences la mën a am ci peuple bi après. nga koy génn di ko wax sur la voie publique ba pare di leen woo ci débat ah. <laughs> Ousmane Sonko moo fi njëkk wax bu ñu ñemee nañ ñëw ñu toog débat public kon bu ñu ñëwee tey naan Ousmane Sonko di ko diaboliser mais Ousmane Sonko ñëwul rek commencé di attaquer naan ay euh, résistance dafa ñëw indi solution jàpp ni on est dans une un dans une république jàpp ni li muy def mooy nan la war a def pour atteindre pour pour conquérir sénégalais mooy mu indi leen ay solution <laughs> indi leen ay proposition mais il <laughs> Ousmane Sonko moom rek moo bind livre ci opposant ba pare nag di di saytu bépp xaalisu réew mi fu muy jaar di di signaler askan bi 2019 mais Ousmane Sonko moo njëkk a taxaw ne les sénégalais vont souffrir en 2019 ci assemblée nationale bi. xool PIBC Sénégal xool sunu alalu réew nu muy duggee nu muy génn ak seen modèle économique mu ne leen seen modèle économique bi baaxul te les sénégalais vont souffrir il 2019 la ko waxoon on est on n'est pas en de souffrir. Euh, euh, kilo ñebbe 300 la doon jar seer ba seer léegi kilo ñebbe 1000 francs lay jar ceeb kenn du ko laal fi toll nii may wax suukar kenn mënu koo gis ba di ko jënd en tant que biir weeru koor nit ñi mënuñoo am suukar man mii paquetu suukar puukar bekk laay jënd ko ataaya te Ousmane Sonko waxoon nañu ko bu yàgg léegi nag li tax discours bi changé mu yor discours révolutionnaire parce que dañ ko dañ ko jàpp di ko bundu xatal bi muy doog a ñëw dafa indi solution indi ay proposition indi programme indi débat technique sur fixe parce que bañ naan ko yow waxu fixe fixe rek ngay wax mu ne leen fixe ak impôt moo yor réew Pape Alé Niang di ko invité muy toj muy toj di tasaare li nga xam di xam ah moom li ma xam yëpp ci yorunu réew li ci ëpp Ousmane Sonko moom ma ko xamal. Mm-hmm. parce que politiciens yi ñoom élection moo leen gënoon intéressé wax naan naa tabax tali fii naa leen defaral pont loolu lañ daan wax nit ñi Ousmane Sonko nag dafa ñëw dugg ci fond bi ne leen loolu yëpp baax na. waaye lii moo gën a baax franc CFA bi nangam seen impôt nangam taxe nangam contribuable bi ñu ngi koy dugal ni ngeen signé rappo maam ni ngeen signé contrat yi baaxul pétrole bi ni ñu ko signé baaxul génne scandale yi ci nekk wax ko sénégalais yi. Mhm. mais nag ñoom amuñu nuñ koy tontoo ils n'ont pas d'argument pour tontu Ousmane Sonko mais ñu ñëw diaboliser salafiste la Ousmane Sonko bu nekkee salafiste maam ci nguuru Macky Sall ngay gis débat débat état sur la voie publique. d'accord xoolal laajal sénégalais yi. deux avant 2012 mais débat yooyu ñemee toog ñemee woo toog si télé nga invité ministre wala intellectuel mhm. mu toog di wax ay kii lii la wala kii lii la dañ doon rus loolu wala ay dafa violé wala dafa tëddee jigéen loolu maanaam ci nguuru Macky Sall la am nga gis débat public ay autorité toog du ñu wax sax jafe-jafe réew mi saagante wax lu ñaaw kii lii la def kii lii la def léegi nag comme loolu la fi soo ko indi wuy si wuñ ko mhm. mu indi fi teg débat technique wuy wuñ ko mu indi débat bu ñuy def ba sunu ressources yi naka lañ ko maanaam rapport yi ak contrat yi nan lañ ko signé wuyuwuñ ko. Mhm. mu indi solution livre woo ñoom Cheikh Yérim sekk ñu toog su kan moo ko fi ñeme fii. d'accord ban homme politique moo ñeme bind livre woo ñoom Cheikh Yérim woo journaliste yëpp ne leen kaay leen laaj ma. kaay leen ngeen ñu def débat ouvert ma ma ma ma layal sama programme loolu musul am dans l'histoire de ce pays. d'accord mais nag malheureusement ñi mu jàkkaar amuñu woon uti amuñu woon argument amuñu woon xam-xam bu ñu waxtaanee moom ci loolu. Mhm. léegi nag ñoom ñoo indi débat diabolisation débat wu toroxal nit boole kook jigéen tuumaal ko di yàq deram di ko saaga di ko toroxal di ko def ay tentative ci kawam di tëj ay ñoñam. ba léegi moom amatul benn issue de secours lu dul résister. d'accord mu ne nag mu ne résistance. Hmm. bala ñu ñëw ci leaderu Pastef bi ak procès yi nga xamante ni dënmal nañ ko bu Mame Mbaye Niang bu Adji Sarr jamono ji ñu toll mi ngi yëglu waaye dañuy wax ci beneen mbir bi nga xamante ni jamono ji tamit jur na polémique muy bracelet électronique yi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi ci yëy yàbbi ay ñi nga ni tegoon nañ leen loxo waaye ñu génn leen takkal leen li nga xamante ni mooy lam yooyu le ban jàngal nga am ci loolu nga xamante ni jamono ji ñu bëri ñu ngi ci yëy yàbbi waaw dafa fekk ay gor yu ko gën a doon gor bu bëgg leen def jaam. ndax Macky Sall bu fekkoon ni sant bu rëy moom moo dox ci Sénégal Macky Sall du fi doon chef de quartier. déet waaw gënu fi kenn sant. bu fekkoon juddu bu rëy mooy tax a doon dara ci réew mii ku amul juddu bu rëy doo doo doon dara Macky Sall doon dara ci réew mi ndax képp fi kenn judd. bu fekkoon rëy koll wala rëy biir wala gudd loos bu kon gëleem du du fanaan biti. bu doon dara jaakuw loos gëléem du fanaan biti bu doon rëy biir mbaam kon du fanaan du maanaam du fanaan biti amul njariñ dañ ko fal parce que on est dans une république mooy que xooluñu kenn foo bokk ak loo doon ak koo mën a doon amal compétence am xam-xam remplir critères yi nga xam ne république bi wax na ko pour nga jiite réew mi boo ñëwee ñu jox la réew mi xooluñu foo bokk xooluñu yaay kan xooluñu sa askan kon Macky Sall bu ñu doon xool askan wala gore wala lu mu mën a doon Macky Sall du ma jiite man kon tey moom ba ban doole la Macky Sall war a am di ñu jaay doole ñun mooy doole bi ko askan bi jox kon daf ñoo trahir Macky Sall daf ñoo trahir wallahi Macky Sall daf ñoo wor Macky Sall daf ñoo maanaam dafa am contrat bu ñu signé woon ak Macky Sall Macky dafa rompre contrat bi. Mhm. Macky Sall amatul dara lum ñu desel ñun sénégalais yi amatul amul moom ñi mu àndal amul lum ñu desel parce que bu demee ba Macky Sall di ñu jàpp di ñu takkal ay bracelet non loolu c'est mais mais c'est inadmissible comment on peut penser dans une république nga pare nga nennu benn leader mais Macky Sall ni muy oppose ni muy defee dafa ñaaw mooy yow mais sa adversaire politique mais war nga am benn sa benn benn auteur ba de non yooyu su ma ko defee sax dañ naan li mu nekk sama adversaire moo tax mais Macky Sall lan moo tax amul amul rasu amul gàcce quoi maanaam non amul gàcce. wallahi Macky Sall amul gàcce. ñu rafetal cas bi bala ñu ñuy takk ab non amul amul amul non amul gàcce. Hmm. loolu si loolu loolu loolu ban moo laa mën a utiliser amul gàcce. amul Macky Sall amul gàcce man maa ko wax man ko naan xoolal Macky Sall xoolal na na ut conteneeru bracelet yow ñun ñu lay tiire ay bal ñuy taxaw moom ñu ñuy wax ay bracelet yow c'est que Macky Sall maanaam dafa mënatul maanaam munatul déco déco maanaam décoder. esprit jeunesse bi actuellement Macky Sall on est tellement en sur euh, parce que moom li mu jàpp ni ñun loolu lañ ragal ñun loolu faalewuñ ko booy man mii di wax ak yow man fanaan naa ci mbedd ba tàyyi man fanaan naa ci taw man fanaan naa mag su may waajur ci kaw terrasse muy taw ndax suñu kër dafa taa man soo ma tëjee kaso man man mënatuma dund lu gën a metti loolu banlieue laa dëkk tam bëri naa ci ay morom yoo xam ne dañuy xëy du ñu am 1000 francs bu ñu jox seen yaay seen xol egg fii léegi kooku boo ko bëggee napp kooku mënatoo ko napp mënatoo ko mënatoo ko maanaam gàcce maanaam mënatoo ko teg métit bu raw bi muy dund ci xolam mooy mu xëy bëgg a jox yaayam 1000 francs amu ko mu génn gis ñi bokk ci nguur gi di pasar pasaree alalu Sénégal kooku xol boobu muy am bu metti soo ko bëggee di kaso wala nga koy dig rey maanaam yow mu ba tey atteindre goo esprit moom moment bi mu toll te wallahi jeunesse Sénégal moment bi mu toll Macky Sall su ko xamoon dina arrêté yi muy def. d'accord kon bracelet yooyu. Macky Sall ñu bëgg a noot nee naa la daf ñu fekk ñu nekk ay gor mu bëgg ñoo def jaam te loolu du ko mës a réussir ndax xam moo tax nee naa la ba tàyyi ñett yi kenn du ci am ndam yafal mbàgget roose mbopp tiital jàmbaar gis nga gis nga mambuso ñett yi kenn du ci am ndam te peuple sénégalais wallahi ay jàmbaar loolu Macky Sall du ñu yaakaar ba pare di ñu yàpp léegi man mën naa laa wax léegi lan moo tax ñi féete ci opposition bi rek la ñuy jàpp di tëj damay laaj ñaata scandale Mame Bousso ñoo fi am ci Sénégal scandale ay milliards laa wax est-ce que mës ngaa gis benn rapport nag wala IG wala Cour des comptes boo xamante ni épingle na ministre wala dara ñu jàpp ko intimider ko dugal ko ci kaso bi wala sax ñu woo ko rek convoqué ko